mais maa ngi lay bëggee. dañ la doon xaar ci tey la mais gisuñu la. non non non c'est parce que cat daf ci dugg dama am blessure kan moo la catu non dama amoon match barki démb man football laa bëgg. te su ma ñëwoon mbëri dañuy dañuy gën a jël. baalu kon ay 5 6 la ñuy wax. 10. <laughs> kon heureusement ba mu demee dina gën a garaaw maa ngi lay nuyu di nga nuyu ak euh, téléspectateur euh, ngi seetaan. waaw maa ngi nuyu ñëpp vraiment maa leen nuyu ci ci seen tur ak seen sant. di kontaan baax ci invitation ci Boxon Events muy sama xarit di sama ami d'enfance donc li mu organisé nii mu nekk c'est une c'est une réussite totale sérieusement mu nekk jeune bu am am ambition ah bu ambitieux bu xam li mu bëgg bu am ay projet pour réewam donc bokkul ci ñi tukki rek des foofu dafa tukki bëgg liggéey pour ñëw defar réewam donc mooy wax ñu jàppale ko bu baax baax baax. mu nekk première édition te ku ne gis na ni day première édition d'habitude day faral di metti mais suñu borom suturaal nañ ko bañ dem ba final te amul benn faay ban jàngat la ci am. non mais jàngat bi ma ci am mooy nit ki c'est la personne en fait parce que bokk soon nit ku baax la nit ku am xol bu rafet la donc lii ay yëfam mënul am lu dul réussite donc vraiment ñu koy encourager di ko xaman ni lii première édition la deuxième édition mi ngi ñëw troisième édition mi ngi ñëw te day gën a metti day gën a neex gars yi day bëri. xam nga mi ngi noonu nañ ko jàppale daal. donc mu ngi noonu maa ngi ci taxaw kenn muy as euh, dama koy bay mu daal di présenté wu daal di nuyoog euh, internet ak téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi bàyyi xel as maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax di nuyu internet ak téléspectateurs yi di leen wax dañu kontaan trop pour ñëw ci événement bi tey voilà as tey match bi gis nañ ñu ngi ko déroulé mu neex macha allah ngeen gañe lutteurs yi. waaw gis nga effectivement comme affaire yi moom c'est nous dans Euh, fo nañu kontaan nañu defaale nañ sport tàggataale yaram bi et donc euh, yàlla dogal nañu ñu gagné lutteurs yi donc je me dis que ne victoire collective la victoire yi ñëpp la que ça soit muy muy acteurs yi di influenceurs yi di lutteurs parce que esprit bi ci bi ci am rek moom moo ci moom moo ci am importance ñu daje ñun ñëpp en tant que artiste en tant que en tant que comédien en tant que sportif en tant que sénégalais ñu daje ñun ñëpp booloo doon benn euh, autour du football et c'est vraiment important voilà mu ngi noonu kontaan nañu as ñu bàyyi la nga daal di xam naa ne sonn ngeen di wax rek beneen édition incha allah ñu fas yéene ànd ak yéen incha allah ak Boxing Events. d' accord incha allah ñu ngi leen di jox rendez vous beneen édition tournant de l' ak. Bobson ah Boxing ñu ngi leen di jox rendez vous ci beneen édition tournant de l' espoir ak Boxing Events. sama gauche eh, taxaw ak Zé sama droite dama leen di bàyyi eh, ñu daal di joxe seen impression ci bis bi eh, ku ne gis na match bi ni mu demee macha allah maa ngi leen nuyu ah ñu ngi leen di ziar bu baax di leen di leen di leen di leen sant waa ci teewaay bi match bi neexoon na macha allah mais. <laughs> waaw nu mu marché boobu. Baranda lay def. <laughs> dugaloo de. dugaloo daal boo yow yow ne joueur mais fii ay joueurs ngeen dindi de ñoom lañ gagné ñoom lañ gagné. non non c'est que Guédiawaye suba danoo may combat quoi. waaw Marley day bëre Thiat Daouda Fall Mathia. Marley ndigal booy dañuy bëre suba looloo tax mënuñu ñëw quoi mais mas dañu bëgg ngeen tëggaat ko ñu see. mais nee na la mais deuxième édition bi. ñu leen doon ndax da ngeen stressé si combat yi booy am ak yooyu noonu. non non stress suba bi xam nga ak indi ñu équipe bi. moo leen jàpp ba jëlee. mais man gis naa la ngay puubal ngay fubal di bàqu. li woon répété li ngay répété. suñu équipe ay Sa Thiès dafa war a see ay Marley. ay guy yi ñëpp dina war a fubal mas yooyu ni ñu koy tëggaat loo leen bëgg ci deuxième édition bi yéen a koy ubbi incha allah ak influenceur incha na trop billaahi lii la quoi ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lii dama bëgg ñu ko def ko édition yu bëri gars yi di seen ni ngeen di seeg waa Guédiawaye ngeen koy seeg waa Diamaguène waa Parcelles ñëpp gis seen bopp quoi. mais xanaa seetaan depuis début bi dañ ko décentraliser gox yëpp si waaw mais dafa war a wàcc nag comme ça géejawaay ñii dañu war a ñëw géejawaay. géejawaay ah, fa trois équipes. lii nii ci xooy la bokkat lii nii xoola. <laughs> lii dama leen bëgg na bomb tey bu seen yaram bi yàqu mais la demee mais yàlla <laughs> ci place. non yéen tamit dañuy xaaju. <laughs> voilà noonu la demee ma ne initiative bi rafet na ñu ñëw xam nga football ak ay mbër tu vois football ak euh, ñëw bon li ñu fi daje rek alhamdulillah quoi nice na xamante nañ fi ay nit donc sa veut dire que lu baax la quoi luy dajale la li day wane encore une fois que Sénégal lii lañ xam quoi tu vois benn bopp la alhamdulilah quoi je pense que sama boobu mëneewu ma wax trop ci caméra mais samay kilifa dina boo mënoon fii toog. <laughs> waaw mais waaw mais waaw mais di di rafetlu li fi li fi xew parce que tey lii dafay fédéré quoi day tax nit ñi gën a gën a gën a nekk benn. ba pare ñi nga xamante ni dañ daan gisante ci tele bi wala leneen ñu mën di daje tey mën a saafonte mën a joxante ay contact xamante bu baax baax donc lii dañ koy rafetlu et puis tamit bu dul dara tamit sport dafa baax tàngal sa yaram tey man football ma parce que dama dama. ñu ngi la doon bu garaaw laa nag. waaw bu doy waar. c'est waaw waaw waaw bu bees la. waaw damay non Maria. waaw ah, mais damay seetu damay seetu damay seetu ba léegi su ma su ma paree seetu ñëwaat ci terrain voilà mu ngi noonu euh, ma bàyyi. marié marié eh, de. lii laa doon bañ ñu tiim ma nii après ñu may tutoyer mais amul problème. mais yaa ngi si yéen a ngi si jàmm. ñu ah. bi. waaw match bi neexoon na neexoon na trop vraiment nekk na loo xamante ni daal ah gis nañ si suñu bopp et puis ñëw nañ gérer nañ ko yàlla na nekk loo xamante ni ñu def chaque année quoi. bii dafa nekkoon suñu première édition mais ñu ngi ñaan yàlla yeneen édition yi ñëw euh, yii ñii édition yi ñëw mu gën a yaatu incha allah te bëgg nañ boobaa ngeen ànd ceeg euh, euh, waa Boxer Events ndax tournoi bi ni ñu ko defee mooy gox bu nekk dugg nañ fa jël nañ fa équipe lépp pour defar lépp pour boole jeunesse Sénégal xam nañ ko football la ñu bëgg donc moo tax ñu woote football bi mais lépp ci fair play ak bëgg ñëpp bokk nekk benn bu ngeen bëggee chaque mois ñun foo la ñu woo ñu wuy leen parce dafa doon loo xamante ni daal lu nice la vraiment ñun gis nañ suñu bopp yéen heure boo leen pare ak heure boo leen ko ñun bu ngeen ñu contacter day ñëw incha allahu rabbi waaw mais yàlla ñu yàlla defal jàmm ñu ñëpp di ko fekk chaque année mais nag waroon ñu fekk suñu benn copain boo xamante ni Jean Paul moom moo daan ko euh, coordonné yu mel nii yëpp waaw heure bi war na fekk moom moo ñu manqué manqué nañu vraiment ñu koy ñaanal fi mu tëdd yàlla na suuf woyof si kawam waaw. parce que ku gis ni yéen euh, nu mu demee nii ñu gis leen yéen ñëpp gis gisuñu ko xel dina sori mais dañ koy ñaanal yàlla fi mu jëm gënal ko fi mu jógee ak képp ku mu fa fek euh, ma bàyyi Jules César aussi mu nuyoo moom it joxe ay impression ci bi gis nañ ni que na dem na def na lu ne macha allah ñu koy félicité aussi ci waaw salaamaaleykum nuyu rek nit ñi di nuyu ñi nga xam ni ñoo am initiative bi parce que initiative boo xam ne moom bu dee ay boole ay nit la dañ koy rafetlu te xam ne lu baax la. parce que boo demee ba boole les artistes nga boole les lutteurs les acteurs les tiktokers nga boole ñëpp loolu rek day day day fexe ba dooleel ñu ba suude ñu bu ko defee ñu nekk benn Sénégal parce que Sénégal bu ñu ko xaajee rek loolu du baax ci ñun du gën ci ñun loolu may waral tey jii ngay gis yenn fléau yu bari di am ñii di jël gaal gi ñii di dem fii ñii di dugg fii ñii di parce que amul ay moment yoo xam ne wala ay événement yu fédéré ñi di leen boole lii nag football moom boo ko defee da ngay woo ñëpp da ngay boole ñëpp commencé ko ci man mi nga xam ne football moom lépp lu ma waay woo ci football dama ciy sawar kon dañ koy encouragé di ko rafetlu bu baax di ñaan rek deuxième édition bi mu nekk édition boo xam ne bu mag a mag lay doon ñëpp fekkee ko musiciens yeeg rappeurs yi ñëpp bokk ci bu ko defee mu nekk loo xam ne pour Sénégal la nek lu neex quoi incha allah. voilà mu ngi noonu merci beaucoup Jules César kontaan nañ defe naa ne kàddu rafet na te édition yi ñëw incha allah dinañ ci ànd ak yéen ba final ba incha allah. merci beaucoup jaajëf merci beaucoup. Euh, nuyu naa la. maa lay fay yaay booy. tur bi naka la. Nouroudine. Nouroudine la Nouroudine yaa mujjee marqué troisième but bi léegi. waaw <laughs> am naa gisoo bi <laughs> waaw di ko doon eh, mais Nourou ñu bàyyi la nga joxe sa impression ci bis bi ak naka nga Box and Events initiative bi ak concept bi mu taxawal muy tournoi de l'espoir bi nga xamante ni dafa boole képp koo xam acteur culturel nga rek. waaw dañ koy rafetlu ah franchement sama gars yi comme ni nga ko waxee dama koy rafetlu bu baax a baax te lii nii c'est pas la première fois ñu koy def yàgg nañ def di football entre tiktokeur di football entre mbër entre artiste chanteur donc tey jii c'est une première mais bu bu bu amaatee rek maanaam suñu mbégte bu rëy lay doon quoi si ñun donc ñoo ngi kontaan bu baax a baax a baax a baax ci ci li mu am bi moo may jàmm nag <laughs> baax na baax na baax na baax na kaay. suñu euh, taxaw ak euh, ki nga xamante ni moo initié lii nga xamante ni mooy tournoi de l'espoir bi muy Bokar Boxing Events dama koy bàyyi mu daal di nuyoo téléspectateur ak internet yi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel laataa ñuy waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom la taxaw waaw asalaamaaleykum Fatou maa ngi nuyu internet yi ñuy saan ñëpp di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu ku nekk turam ak santam di nuyu internet yi ñuy saan tamit à travers euh, chaîne média victoire n'est-ce bi nga xamante ni defe naa ni tey ñu ngi final bi c'était pas facile mais xeex nañ ko ba egsi ci tey ban jàngat nga ci am ak lan nga ci yëg. waaw lu ma siy jàngat mooy satisfaction totale comme ni nga xamee rek c'était pas c'était pas un challenge facile. Euh, on a eu à réussi à galvaniser 40 420 joueurs donc c'était pas facile nga regrouper jeunes yëpp tu vois 16 équipes donc on a joué au total 33 matchs donc euh, je pense que c'est une réussite c'est une satisfaction quoi. tey nekk entre team Gala génération 2000 ak ñi nga xam te mooy ASC Ouakam ñu gis nag vraiment am nga ci loo ci innover lu bëree bëri bëri bëri waa première édition la woon donc qui qui de première édition dit deuxième troisième donc je pense que y aura y aura la continuité euh, gars yi mën nañ xaar yeneen édition yi ñëw incha dans le futur donc euh, première édition bi ça a été une réussite comme je l'ai dit tout à l'heure tout est tout dans le fair play le respect donc équipe yëpp adhéré nañ projet bi donc euh, satisfaction totale lañ ci am waaw surtout ça mention spéciale ak sama équipe organisation tu vois parce que boo xoolee li yëpp ñoom la ñoom ñooy euh, ñoom ñooy réunion chaque jour parce que man lu ma fi nekk bëriwul donc ñoom ñooy tout le temps ñoom ñooy coordonné marché di coordonné équipe def réunion bi man presque mën naa acteur laa rek man maa ñëw maa organisé affaire yi mais presque lépp sama équipe organisation la ñoom ñoo coordonné équipe ñoom ñoo def lépp quoi donc mention spéciale ak sama équipe organisation jeune nga mënoon investir ci dara nga ñëw viser football moom ngay def lan moo la dugg ci loolu wala li nga dund football la nekkoon waaw parce man je suis de football dama ko doon def donc euh, bu mu amee sama projet football laa si njëkk xalaat loo xam ne parce que en tant que ancien footballeur football laa du ne que mun naa commencer sama projet. d'autant plus que dama am chaîne am euh, loo xam ne ci affaire boxing event lépp loo xam ne ci événementiel lay daw donc ma ne woon bàyyi ma commencé ci football comme ça football la ñu xamee donc euh, dina lancer sama structure et tout quoi te gëm naa ne avec première édition bi gars yëpp adhéré nañ projet bi donc euh, ça va quoi waaw ah, di leen remercier yéen tamit yéen seen teewaay fii di remercier euh, ñi fi teew ñëpp di remercier sama équipe organisation di leen jaajëfal merci beaucoup. fay naa la fay naa la soxna si. Babacar euh, depuis premier match ba tey final euh, ban jàngat nga ci am tey ñeen war a jàkkaarloo xale yi nga xamante ni macha allah waa Wakaam. waaw waaw ah ah ma tournoi moom xam nga comme ñun moom ah, xaw nañ am tuuti expérience si football bi donc moom la ñuy utiliser rek jéem a naxante. waaw bon yàlla moo ñu si dimbali nag ba yegg final mais daanaka match yi ñu joué yi ci bëri c'était serré parce que tournoi bi tournoi bu intéressant la équipe yi fi nekkoon yëpp équipe yu baax lañ donc yàlla def na tey ñu ne wakaam la man li may gën a jàpp sax mooy événement bi événement bi parce que baax na trop ñuy dajale nii di jël des anciens ñuy ñëw di ci jàpp di ci bokk xam nga donc euh, aujourd'hui yàlla def na ñu yegg fii c'est une très bonne chose mais dañuy féliciter aussi ñeneen ñëpp ñi si nekk ñi ko organiser ak yooyu yëpp ba ñu agsi Boxon Events voilà waa Boxon Events dañ leen di félicité vraiment c'est une très très bonne initiative voilà on espère que dinañ ko def si ay années yu bëree bëri daal incha allah. est-ce que pare ngeen pour accompagner si vu que ni yéen yàgg ngeen di dund édition yu mel nii yàgg ngeen ko di ko def di ko organiser mu am une réussite est-ce que pare ngeen pour accompagner ko comme jeune la nekk xale aussi te yombul. voilà jox nañ leen déjà suñu accord sax par rapport ak loolu parce que daanaka bi ñuy préparer affaire yi si lañ ñu wax si la ñu waxtaan ak ñun waaw ñu proposer leen saa yu amatee daal ñun bokk nañu waaw et puis n'importe événement bu ñu organiser. voilà ñun bokk nañ déjà donc nañu xam ne daal jàppale leen moo ñu tax a jóg et puis initiative yu mel nii moom ñu félicité si bu baax voilà. merci beaucoup Baba. waaw ah, jërëjëf jërëjëf. muy noonu maa ngi taxaw ak euh, waa Wakaam yi kenn ci ñoom muy capitaine bi dama koy bàyyi mu nuyoog téléspectateur ak internautes yi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel tey ñu nekk fii ci tournoi bi muy final bi ñu gis ne que vraiment depuis début bi yéen a ngi ci ànd ak ñun euh, xëy na métti woon na mais ñafe ngeen ko ba egg si macha allah tey ban jàngat ngeen am ak ban yëg-yëg ngeen ci am waaw di njëkkee si nuyoo naa asalaamaaleykum di nuyu ñi mu fi fekk yëpp di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp di leen jaajëfal bu baax xam nga tournoi moom li ñu si mën a wax commencement bi ñëw nañ si li nga xam ne moom lañ si njëkkee mooy fair play bi ñu doon bi ñuy di wax chaque à chaque fois di si insister xam nga fair play nañ xam nga football nekk si jàmm ak amul xeex amul coow te loolu ko dama jàpp loolu rek bu commencé tournoi rek mooy ku commencement bi réussir na. parce que loolu lañ si doon bañ xam nga ak violence nu mu bëree jamono jii nii bu ñu waxee xaalis rek ku nekk di koy jëlee xët-xët xool xam nga loolu yëpp ñu bañ si xool loolu di ko def fair play football ko si jàmm sans respecté suñu adversaire respecté ñi fi nekk yëpp moo tax tournoi dem ba egg fii ne amul coow amul dara xam nga. mu ngi noonu léegi lan nga wax Box and Events bi nga xamante ne moo taxawal lii ak est-ce que pare ngeen pour ànd ak ñun ci yeneen édition ne mu ngi ñëw. waaw Box and Events na trop moom moom mais xam nga rek géré na ko xam nga vexewul kenn rafetlu nañ moom nu mu doon nu mu doon waxee adve ni mu doon waxee ñi nit ñi ak xam nga di leen dëfal affaire bu ñu meree muy wàccee neer yi di ko rafetlu di xam ne dinaa nga tournoi moom réussir na moom waaw réussir na moom bu baax sax xam nga rek di nga xaaraat si yeneen événement rek incha allah rabi ñu ngeex moom moom ñu ànd ak moom mag mag la mag dóoru mag lay dóor daa yàgg football qui mooy Siré Dia à la cinquième c'est fini team de champion